su fekkee tële nga xar nag bay ñëw ci béy nag xamal ne faaw moom béy wu góor wa kenn tàpput mooy gën béy wu góor wa ñu tàpp ba tey it béy wu góor wa ñu tàpp mooy mooy gën béy wu jigéen wa xar wu jigéen wu mën wa inaasul maxas si jigéen ñi béy nag afdalu ñoo gën minel ibli ci gëleem ya wala baqar yi ak naya fi daxaayaa ci tabaski ya tabaski moom la gën a baaxu yàpp rek la ñuy seet moo tax kon béy wu jigéen la muy nur nuru lu xaw a yamaay fi tool yi moo gën nga tabaskee ko moo gën nga tabaskee gëleem mbaa nag tax ndegam yàpp bu baax bi rek la moom yàpp gàtt day gën yàpp gëleem mbaa yàpp nag moo tax kon bu dee tabaski rek moom nga tabaskee béy wu jigéen la muy nur nuru lu yamaay moo gën tabaskee gëleem mbaa nag dana wax nag bu dee ci addiye mooy la ñuy rendi foofee ca béréb yu sell ya ca màkka ak ca minan xam ne moom dañoo bëgg yàpp bari ngir miskin yi moom boobaa lu ëpp moom lay bëgg wax sax boobaam lu ëpp yàpp rek mooy gën ba tax mu naa wa amma fil hadaya daal ci addiyu ya fal iblu gëléem ya afdalu ñooy gën sumal baqaru topp naya sumal daanu topp xar sumal maas topp bay hadaya mooy la ñuy rendi foofee ca màkka ak minan foofu moom dañoo bëgg yàpp boo bari ndax ñi ci loru man caa xéewlu yooyu jamono nag loru dafa bari woon ci xiifa gi demee noonu wuti naag léegi moom yooyu jamono nag ba ci léegi sax biñ toppee noonu gëlee moo ëpp yàpp mooy gën nag topp ci xar topp ci bay féete suuf wala yu joosul dagan fi cheyin ci dara min taalika ci loolee xawraaw aji pat maa loo mën tëbaskee rek moom bu mu nekk ku bëtam pat mooy benn bët ba amul leer mënta gis loolu du ma di daal di manqué tabaski wala maridatun du jaageenu aji tawat ba tey na nga moytoo tabaski loo xam daa tawat tawat ju fis bi mën ko caa xàmmee bu baax a baax wala xar jaaw du jaageenu aji làggi ja al bayinu jee aji biir dalaxuhaa soo xam nga koo xam ne daa làggi te làggi ga dafa fis nga xam ne bu àndee jur gi nga séen na muy sooxe kooku ba tey du ma tabaski walal xaj faaw du caageenu aji làpp ja allati ja nga xam ne la chahma déet nebon mooy déet gerees fiiha muy nekk ci moom ba tey bu yooyee lool lool ba nga xam ne amul gerees sax kon ba tey du mat tabaski wayu taqaa def na wattandiku fiiha ca tabaski ma alxay bu sikk sa kulluhoo léppam moom daal ndegam lu ñuy jaamoo yàlla la fexeel ba sikk yi mu la wax mbaa beneen sikk itam bañ caa am sikk yi nga xam du ko tee doy sax bu ca mënee bañ a am moo gën walal mashxooxatul uzun yi du jaageenu bu ñu xar ab nopp ilaa añ yàkkoon rek bu dafa nekk yasirin di aji néew bu nopp ba xaree sax du doy tabaski lu may na nga xam ne xar-xar ba bariwut bu fekkee ne daal nopp ba dafa xar waaye la ca xar bariwut te loolu mooy la ca xar boo ko dee seet day tolloog boo defa nopp ba ñetti xaaj benn xaaj baay xar mbaa du ko mat sax loolu kon jégle nañ ko du ko tee baax bu ko ëppee rek du baax wakal saalika naka noonee la alxataxu dagg ga loolu mu ne ba tey dagg nob ba it noonu la dañ caa wuute ci ndax nob bi dagg ga muy njoof ga ak xar ga ñoo yemoo képp am déet am nañu ne ñoo yemoo rek bu fekkee la ca dagg boo ko defoon ñetti xaaj day tolloog benn xaaj mbaa du ko mat ñu jéggale ko la ca dagg na bu ëppee benn xaaj ba kenn du ko jéggale mel ne ne jooju wax daal moo gën a bari ñu ko wax mu des nag geen ba ca gannaaw geenu gannaaw ba moom bu fekkee farut am ab geen ba am na ko waaye daa am lu ca dagg la ca dagg moom bu fekkoon ne boo ko defoon ñetti xaaj moom geen ba la ca dagg mat benn xaajit daal nay manqué du doyati tabaski te aajowoo bu geen ba daggee la cay dagg bañ a mat ceer ba yemale wuñu moom geen bi ak nob ba faawu balaa baax day aajowoo la dagg ca geen ba bañ a mat ceer ba mooy boo ko defoon ñetti xaaj la ca dagg bañ a mat benn xaaj ba wa magsaratul xar ni ku ñu dam béjjën inkaana dem nekk na yuddi mi di nàcc fa laay joosu du dagan waaye lam yuddi mi dem nàccut fa daalika loolee jaay suñ aju dagan la noonu mu ko waxee bul ko ni jàppee daa wax ni su béjjën ba demee bu dee nàcc du doy bu nàccul daal nay baax déedéet da ngay takk ne su béjjën ba wéree rek baax na su fekkee wérul nag du doyati xam nga mën naa bañ a nàcc te taxu koo wér waaw day aajo nga wax ne rek bu ba demee daal moom béjjën demoon na waaye wér na kon léegi doy na tabaski waaye nag bu fekkee ne wérul rek donte nàccut du ko tax a doy wali yëli na féetewoo arrajulu waa ji dabxa udhiyatihi ren di tabaski ma biyadihi ci loxoom baxda dabxil imaami ci gannaaw rendik ilimaan ba aw naxarihi wala ak lojam yow ma naxari ci bisub loj ba daxwatan ci ab yoor yoor taamu nañ boo amee tabaski nga fexe ba rendil ko sa bopp bañ koo rendiloo kenn da ngay bàyyi na ba ilimaan rendi ba noppi mbaa bu dee loj nga bàyyi ba ilimaan loj ba noppi nga door a loj yow daañu wax lu wutale rendeeg loj lu ci nekk mën naa am waaye lu ci nekk am na fu mu jëm fu mu koy féetale wa man tabaxa ko rendi xabla an yatbaxa ci njëkk muy rendi al imaamu ilimaan ba aw yan xara wala muy loj axaada kon mu baamu udhiyatahu tabaskeem ma maanaam bu fekkee ne ilimaan génne waa leen am tabaskeem ci jullikaay ba nga gaawantu ba njëkk koo rendi moom doo baaxle bu bëggee tabaski faaw nga rendiwaat meneen bu fekkee ne ilimaan yóbbaaliwul tabaskeem ca jullikaay ba nag moom boo ñibbee da ngay tollool rek ba jàpp ne ilimaan daal fi mu toll koo gis war naa àgg ba rendi soo tolloolee ba jàpp ne koo gis war naa àgg ba rendi rek nga rendi rek daal nay baax donte jiitu nga ko itam ci tolloole ba du ko tee baax bu fekkee ilimaan amul tabaski itam dañuy tollool jiir boo xam ne ba mu jullee ba nopp ba xot ba mën na faa rendi rek bu ko defee ñoom ñu daal di rendi wa man ña nga xam ne laa imaama dit ilimaan lahum di leen ñeel fal yata xaraw nañu nattale salaata aqrabil a'immati julli gën jaa jegey ilimaan ya ilayhim jëm ci ñoom wa dabhahu akuk rendeem nee na ña nga xam ne amuñu ilimaan moom du aajowoo ñu dem ca dëkk ba am ilimaan di seeti ba xam ren naam déet déedéet dañuy tolloo leen nun daal dëkk sàngam moo nu gën a jege te ilimaan sàngam moo fay jiite buñ tolloolee ba ne nag ku dem fu moom daal da nga war a fekk mu julli ba rendi rek ñoo mën nañoo daal di rendi te bu wóoree ne jiit nañ ko itam ca rendi ko du wàññi dara tollool rek moo leen ci war buñ tolloolee ba jàpp ne daal ilimaan boobu leen gën a jege war naa rendi rek ñoom ñu rendi seen jaan wàcc doonte sax wér na ne jiit nañ ko njëkk ko rendi wa man daxaa ku tabaski bi day leen ci guddi aw ahda wala mu addiyu law yu sii du ko doy li mu wax ne ku rendi ci guddi gi mbaa mu loj ca guddi ga du baaxle da nga ciy génne bis bu njëkk bi muy bisu fukkeel bi moom xaman nga waxtu rendi wa mooy gannaaw bu ilimaan rendee rek lañuy door a rendi bis ba ca topp nag mooy bu ñaareel ba ak bu ñetteel ba nag lay wax naa ku rendi ca guddi ga muy la tàmbalee fa jant ba soye ba kera fajar di fenk diggante boobu mooy guddi gi ku fa rendi ci ñaari fan ñooñu bu mu ci mën doon tabaski ma du baax gannaaw bu fajar fenkee rek moom boo rendi daal nay baax waaye na nga bàyyi ba jant bi fenk ba yëkkatiku lu toll ni ñetti meetar waaw kay foofu lañ ko gën a taamoo wa ayyaamu naxari bi si loj ga salaasat ñett la yusbaxu def na rendi fii xaaj ñoom aw yun xaru mbaa dee fi loj ilaa xuroo bi sam si ba soxu jant ba min aaxirihaa ci aji mujj seen tabaski ñetti fan la bisu fukkeel bi bisu fukkeel ak benn bisu fukkeel ak ñaar ñetti fan ñi boo ci rend rek am nga tabaski bu jant ba soyee ci bisu ñetteel ba nag ñett yi da nga koy tàmbali woon ci bisu fukkeel bi boo ci tegee benn muy ñaar ba ko ñetteel nag jant ba soyee ci la tabaski yam kenn boo rendee tey itam du doon tabaski ndegam jant ba sona ci bisu ñetteel ba wa afdalu ayyaami nahri ngeen ji bisi loj ga awaluha mooy aji njëkk seen maanaam ñetti fan yi nag bu njëkk bi moo ci gën moo ëpp tuyaaba nga fexe ba rendi ci bis bu njëkk bi wa man faatahu ku ko faat azab fu rendi fil yawmi ci bis ba al awali bi aju jëkk ila suwaali ba tisbaar faqad qaala wax na baadu ahlil xilmi lenn ci ñooñu xam-xam ne yustahabu def na sopp la ñeel ko añ yasbira mu muñ ila duhal yawmi ba yoor yooru bis ba asaani bi aji ñaareel loolu tam bu ko jàpp moom itaal daa topp rek ibnu habib waaye jooju wax jàppuñu ko daa wax ne bu fekkee ne bis bu njëkk bi rendi woo ci ba tisbaar jot kon lay des ca ngoon nga taw muñ nga rendi ci dañoo bëgg bàyyi ñoo bëgg nga bàyyi ba ci ëllëg sa ci yoor yoor nga door a rendi waaye loolu jàppuñu ko dañoo jàpp ne bis bu njëkk moom rendi ci ba kere jant bi so moo gën xaar bisu ñaareel ba li wax ni nag moom mooy bu la rendi rawee ci suba gi ba tisbaar jot ci bis bu njëkk bi itam dañoo bëgg kon nga muñ ba ci bisu ñaareel ba nga rendi ci yoor yoor ba waaye jàppal ne loolu daal moom rend ci bis bu njëkk bi moom ba kere jant bi sow moo gën rend ci bisu ñaareel ba wala yu baax deful jaay shay un dara minal udhiyat ci tabaski ma jildun moo xam ab der la wala xayruhu du caagi lu dul moom waaw neen nag tabaski moom kenn soñu caay jaay dara dara dara du der wa du leneen ni ngay def sax ku fees nga di ko jox der ba mbaa baat ba mbaa dara sax ku fees moom danga koy jox leneen lu bokk tëg lu bokk ci tabaski ma nekk nga jox ko xaalis mbaa marchandise mbaa leneen gannaaw boo ko fayee ba noppi daal lu bokkul ca tabaski ma bu la neexee bu aajowoo sarax nag da ngay sarax rek nga sarax ko ca ndawal ga waaye bu mu doon la nga koy jox ngir fees ga mbaa ngir rendi ga mbaa dara moom wattu wajjahu def na jubale ak dabihatu la ñuy rendi inda dabhi fa rendi ga ilal xiblati jëm xibla wal yaqul dina wax addaabihu aji rendi ja bismillahi wallahu akbar nee na sopp nañ ngay rendi nga jëmale ko xibla du tee nag boo ko jëmalewul xibla itam du ko tee baax waaye sopp nañ ko jëmale xibla kii rendi tudd turu allah mi turu yàlla wi moom mënta ñàkk bu ko teyee te waxu ko rek rendi ba du baax la gën a mat nag mooy mu wax bismillahi wallahu akbar waaye bu ne woon bismillahi képp mu doy bu ne woon allahu akbar mu doy bu ne woon laa xawla wala quwata illa billahi mu doy bu ne woon subhanallahi maanaam bu ne woon subhanallahi mu doy bu ne woon laa ilaha illallahu mu doy am na sax ñu ne boo ne woon allah rek bu ne woon allah rek ko itam du ko tee doy wa in zaada ndem dolli na fil udhiyat ci tabaski ma rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna fala ba'sa deetu ay bizarika ci loolu ñu ne bu dee lu ñu jaamu yàlla niki tabaski bu mu waxee bismillahi wallahu akbar mu boole ci rabbana taqabbal minna yàlla yàlla nangul nangul ne loolu kon baax na kon dañ koy gën a sopp rek ndax di def ak jaamu yàlla ñaanaal yàlla nangul la ko loolu lu baax la wa man nasiya ku fàtte at tasmiyata wax bismillahi fii dabxi udhiyatin ci rendi am tabaski aw xëyriha mbaaludul moom fa innaha naka moom tuukal def na ko lekk nee na boo doon rendi moo xam tabaski la moo xam leneen la waxoo bismillahi waaye fàtte rek a tax kon du ko tee baax des na ko lekk wa in taxamada ndeem tey na tarkat tasmiyati bàyyi wax bismillahi lam tuukal def ko lekk fekkee ba ngay rendi waxoo bismillahi te yaa ko tey nag moom kenn du ko lekk wa kasaalika naka noonu hinda irsaal jawaarihi fa yebal jamkat ya xala seydi ci rëbb wa yi nga xam ñoom nga àndal boo dee rëbb ñu lay jàppal la ngay rëbb ni ki xaj daayes nag ànd ak moom wala muusum siiru wala boo dee ci naaw naaw min ngoob wala yu demee noonu daayes na ànd ak ñoom booy rëbb ji ndax ñu lay jàppal rab yi yooyu moo tudd al jawaarihum yooyu nag boo leen dee yebal da ngay wax bismillahi ki bu dee xaj bi da nga koy téye ba séen la nga bëgg mu jàppal la ko nga wax bismillahi yebal ko nag mu dem jàppal la ko bu dee leneen ba tey noonu ba tey boo fàttee wax bismillahi moom bu ko jàppee des na ko lekk boo ko teyee waxoo bismillahi nag bu ko jàppee kenn du ko lekk. ba tey bu fekkee da nga koy sànni lu mel ne bal cartouche wala nga di ko sànni fetta yu demee noonu ba tey àtte bi benn la. bu fekkee waxoo bisimilahi waaye fàttee tax kon loola des na ko lekk waaye boo ko teyee te waxoo bisimilahi deesu ko lekk. wala yu baaxu deful jaay minal udhiyati ci am tabaski wal xaqiqati ak gàttub tudd wa nusuki ak ak gàttub fiddiyatu laxmun aw yàpp wala jil dundu caageenu aw der. wala wadakun du caagéenu nekk nekk xeetu gerees gu way lay doon wala xasabun du caagéenu ak caas wala xayru dalika du caagéen lu dul loolu waxan na léegi ca gannaaw ne la kenn du jaay dara ca tabaski ma xanaa kon daa bëgg lii gën a matale rek ndax fii dafa wax ne am tabaski wala gàttub tudd doom wala gàtt ba nga xam ne fidyatu la daa am lu mu defan dañ aaye woon ko ko ca armal ga muul batiku fayee ko ko muy fideetu jotoo ko lor ja yooyu yëpp nee na du ci sañ a jaay dara dara moo xam yàpp waa wala der waa wala ak nekk wala caas mbaa leneen wa yakulu dana lekk arrajulu waaja min udhiyatihi ci tabaskeem ma wa yatasaddaqu te muy saraxe min xaaca moom afdalu moo gën la xooñeel ko walay sa bi waajibin waaye du aji war alayhi ci moom bi mu ne afdalu lahu rek dal na yóbbaale walay sa bi waajibin alayhi daa bëgg wax ne bu ñu sañoon tabaski mi nga boole lekk ci ak saraxe ci ak joxe ci addiya waaye taamuñ nag nga saraxe lépp lépp mbaa nga joxe addiya lépp lépp bañ caa lekk buñ sañoon nga lekk ca ndax lekk ga sunna la wala yakulu du sañ a lekk min fidiyatil aza ci jotoog lorja wa jasa il saydi ak payug rabbu wa nadril masakini ak nisaruk miskin ya yetta ngi ni yoo xam ne buñu xasee àgg ci seen béréb bañ leen di rendee mbaa barab bañ leen di loje du ca mën a lekkati moom mi leen di def te mooy la nga xam ne da koo def fideetu muy alamaan buñ ko doon fayloo ca lu mu war ta def ca armal ka te def ko ca loolu bu ko xasee ràngal utal ko caq mbaa mu defal ko màndargam addiyu bu xasee àgg ca béréb ba du ca mën a lekkati ba tey bu fekkee dafa rëbb woon ñu alamaan ko lañ ko alamaan nag doon bokk ci juri kër yi ba tey jeex na bu àggee ci bérébam du ca mën a lekk bu fekkee dafa nisara lan miskin yi nisar goo xam ne ràññeelu ko ne jëmm ji dana rek nisaral naa miskin yi te ràññeelu ne xar mi mbaa bëy wi mbaa nag wi mbaa gëleem gi du ci kàddu du ci yéene ba mu wutee nag loolee nag yóbbu ko ba ca béréb ba ba tey loola du ca mën a lekk li tax ñu ne bu àggee ci béréb ba nag mooy yett yi loo ci xam ne daa demoon bay bëgg a dee ci yoon wa mu rendi ko dana ca sañ a lekk ndax day war a fay beneen moo tax léemu ca teg nag wama ak la nga xam ne xati ba alkuna min hadiyi tatawuxi ci addiyum coobarewu xabla maxalli yi ci njëkk bérébam ba mooy addiyu moo xam ne moo ko coobarewu waaye waru ko nisaru ko moo jekki-jekki wut ko rek ne da koy def ngir yàlla jëmale ko béréb ba mu jëm nag laata muy àgg mu nar a dee ci yoon wi mu daal di koy rendi kooka moom du ci sañ a lekk ndax day mel ne kon yéeneem daa seetlu toon ba tey lu mu nisar te ràññeel ko waaye nag néewul miskiin kat laa ko nisaral daa nisar rek rendi xar mi mbaa bëy wi mbaa nag wi mbaa gëléem gi waaye taxul na mu tënku ko ci ne miskiin yi laa ko nisaral kooku itam bu àggul ci béréb bañ koy rendee mu nar a dee mu rendi ko moog addiw mii mu coobarewul léegi nga weesu ko ñooye moo moom it du ca sañ a lekk wa amma nadrul masakiini almuayyanu wal fidyatu allati lam tujhal hadiyan wa hadiyu tatawuhi المجهول للمساكين باللفظ أو بالنية فلا يجوز الأكل منها لا قبل المحل ولا بعد المحل كن لم نسر المسكيني ترانيل كو ndax be nga wees woon mooy lam ni saral miskin ya tarañeelu ko ak fidyatu boo xam ne defu ko addiyu be nga wees woon mooy fidyatu bu mu def addiyu ba ràngal ko mbaa mu caqal ko ràngal ak caqal benn lañ maanaam daal defal na ko màndargam addiyu ak addiyum coobarewu moo xam ne da ko defal miskin yi ba noppi nag wax ko ci làmmiñam ni miskin laa ko defal mbaa mu fas ko ca xol ba yooyu moom mu àgg ci béréb ba ak mu ñàkk àgg ci béréb ba ñoo ci yemoo du ci sañ a lekk mukk mukk mukk wa yakulu dana sañ a lekk nag mimma siwa zalika ci lu dul loolee yi mu la wax rek la sañuta lekk waaye lu bokkut ak loolu bu ko neexee lekk ca moom mi koy def moo xam ci njëkk muy àgg ci béréb bala wala ci gannaaw bala mel ne addiyum tamattu wala addiyum xiraan wala addiyum jéggi mi xama ak bépp addiyu boo xam ne rek wàññi dara ci aj gi moo tax ñu teg ko ko yépp sañ na caa lekk kon da ngay xool ni ko saraa bi takke wal xaasilu an al aqsaama arbaxatun xismun laa yukalu minhu laa qablu wala baadu wa huwa salaasatu ashyaa نذر المساكين المعين والفدية التي لم تجهل هديا وهدي التطوع al majhulu lil masakini maanaam kon ca dëgg-dëgg ñeenti xaaj la am na ci xaaj boo xam ne du ci sañ a lekk mukk moo xam ci njëkk muy àgg ci béréb ba la moo xam gannaaw bu àggee ci béréb ba la xaaj boobu yett la mooy lum nisaral miskin yi lumu nisaral miskin yi te ràññeel ko ci yéeneem wala tudd ko ci làmmiñam mi benn ak fidyatu boo xam ne def ko addiyu maanaam ràngalu ko defalu ko menn màndargam addiyu kooku du ci mën a lekk mukk-mukk ak addiyum coobarewu moo xam ne da koo defal miskin yi yett yooyu mooy yi nga xam ne du ci sañ a lekk mukk-mukk moo xam ci njëkk muy àgg ca barab bala wala gannaaw bu mu àggee ca barab bala benn xaaja ngoog wa xismun yukalu minhu mutlaqan wa huwa maa wajaba li naqsi sha'iratin ak xaaj boo xam ne moom sañ na caa lekk saa yu ne mooy lu ko war sañu koo bañ ndax daa wàññi dara ca aj ga bi ci topp nag mooy wa xismun yukalu minhu baadu wa yaxrumu qablu wa huwa hadyu tatawuhi wa nadru almuayanu laa bi qaydil masakini xaaju ñetteel bi mooy li nga xam ne bu xasee àgg ca barab ba dana ci sañ a lekk waaye bu fekkee àggul ca barab ba du ca sañ a lekk kooku nag mooy addiyum coobarewu moo xam ne da koo coobarew rek noonu waaye nisal ko woon sax ak lu mu nisar taraañeel ko ne xar mi mbaa bëy wi mbaa nag wi mbaa gëléem gi nisar naa ko rendil saa boroom waaye nag tënk ko ci ne miskin yi laa ko defal loolu mooy xaaj bi nga xam ne mën na caa lekk gannaaw bu àggee ci barab bañ koy rendee waaye du ca mën a lekk nag bu fekkoon day bëgg a faatu ci yoon wi mu daal di koy rendi xaaj bi des nag mooy wa xismun yukalu minhu qablu wa yaxrumu baadu xaaj ñeenteel moom daa wuuteeg bii nga weesu léegi ndax moom bu fekkee àggul ca béréb ba dana ca sañ a lekk waaye bu àggee ca béréb ba moom du ca sañ a lekkati wa huwa nadrul masakini xayrul muayyani wal fidyatu al majholatu hadiyan wal jasaa'u xaaj mujj bi mooy lumu nisaral miskin yi te ràññeelu ko ràññeelu ne xar mi mbaa bëy wi mbaa nag wi mbaa gëléem gi dana rek dane rek nisaral na ma rendil miskin yi juru kër ngir yàlla waaye taxul nag mu ràññee ko ne xar mi mbaa bëy wi mbaa nag wi mbaa gëléem gi ak fidyatu boo xam ne da koo def addiyu da koo def addiyu mooy wutal na ko caq mbaa mu xotti yaram bu di wane ne fidyatu la waaye dama ko def addiyu kooku ba tey ci xaaj bii la bokk bi nga xam ne yukalu minhu xablu wa yaxrumu baadu nga boole ci nag jasaa u saydi payu rabbu yii moom loo ci xam ne xës la àgg ci béréb ba ba noppi doo ca sañ a lekkati bu fekkee ne àggul ci béréb ba nara dee nga rendi ko sañ nga jaa lekk ndax boo ca lekkee itam danga daal di war a fayaat beneen moo tax kon ñeenti xaaj ñaangook wal zakaatu dëgg-dëgg ren di xatxul xolqoomi mooy dagg boliga wal awdaay ji ak yaari sati je ko seq wala yu su doy aqalu lu yees min zalika ci loolee rend ci yoon mooy day dagg boliga ak yaari sati je ko seq dafa wax awdaaj waaye wal wadda joy ni moo gën a jub foofu bu daggee te dagguli ji ba mu àgg rek ba mu set wecc rek kon rendi ba du doy loolu nag moo tax rendi bi xew ci machine yi nga xam ne day to day àgg ci machine bi rek machine bi rek jekk këtt boobeeg baat bi tàggale ko ba tey gisuñu luy tax mu dagan ñu lekk ko waaye dafa yaatu loolu ci réewul islam yi ba tey am na ci yoo xam ne Quran rek lañ koy reye mbaa yu demee noonu yooyu ren nag bu dee ci yoon duñ jàpp ne rendi bu baax la gisuñu daal luy tax mu dagan ñu lekk ko wa in rafax ndéem yëkkati na yaddoxoo loxoom ba'da qat'i baxdi zalika ci gannaaw dagg leen ni loolee ma axaar topp mu baamu yadd xooloxoom fa aji xasate mu jekkali ko falaa tuukalu def ko lekk nee na boo tàmbalee rendi ba nga xam ne sori nga ci rendi ba ndax soo bàyyi woon moom day dee te fekkul nga àggale dagg yee ñu la wax nga daal yëkkati sa loxo moo xam yaa ko coobari moo xam coobari woo ko wax ji gën a wër mooy boo gaawee dellu si àggale ko moom dana baax waaye nag boo yéexee ñëw moom maase nañ ci ne du baaxati rendi ba yàqu na mbedd lay doon bu ñu nee nag rendi bu njëkk ba benn pàddu gaañuwutoon ba lu mu yéex yéex a ñëwaat bu dikkee rek mu baax ndax li muy def dañ koy jàppe rendi boppam muy rendi bu yees kooku nag bu fekkee ne moom moo njëkkandi rendi te dafa yéex a dellu si kon bu mu fàtte yeesal yéene ja te waxaat bismillahi bu fekkee nag ka doon rendi daa dem keneen ñëw moom di rendi ñàkka yàgg du ca dara du tee ndegam ka njëkkoon di rendi bokkut ak kii ñëw léegi rek moom mi ñëw moom na wax bismillahi te ànd ak yéene nga xam ne kon bu fekkoon ne yàggute ka njëkkoon di rendi rek moo ñëw di rendi kenn ki rek la te gis nga noonu moom yàggut kon du aajowoo moom muy yeesal yéene ja di waxaat bisimillahi yéene ju njëkk ja ak bisimillahi ju njëkk ja doy na waaye nag bu yàggoon niñ ko waxee woon léegi moom doonte moom ma njëkkandi ren di mooy ñëwaat it waaye xas na yàgg boobaak léegi ne yeesal yéene ja te wax bisimillahi wa intama daan dem wéy na xataa xatax ba mu dagg ara sa booba asa ak kon ñaawal na wala tukkal waaye na lekkeef ko nee na boo wéyee di xis-xisal ba tàggale ba baag baat ba xëtt nga teggin waaye du tee rendi ba baax na du tee ñu lekk ko ba man tabaxa ku rendee minal xafaa ci doq lam tukkal def ko lekk maanaam boo rendee ci doq ga mbaa ci pegg doq ga du baax te aajoo nga rendee ca kanam fa nga xam ne moo tolloog sa dit ga ak goli ga fa tolloog boli ak ñaar sadidie foofu nga war a rendee waaye boo rendee ci dox ga mbaa ci pegg dox koy du ko tax a baax wal baqaru naye tusbahu def na leen rendi fa in nuxirat ndeem lojeef na leen ukkilat lekkeef leen nag moom la ci gën mooy rendi waaye nag des na ko loj itam nga xam ne boo ko lojee du ko tee baax loj boo ko déggee daa am jumtukaay boo xam dañ koy jam ci xóot-xóot bi ci dënd bi su saree nag balaal xol ba mu daal di faatu moom loolee wala moo tudd loj bokk te rendi rendi moom mooy li nga miin fii gis ko ba tey nag mënees na ko def yaar yëpp moom wal ibilu gëléem ya tun xaru def na leen loj fa in zubixat ndeem ren def na leen lam dukkal defu leen lekk gëléemu dañoo digal ñu loj ko suñ ko rendeete mëneesoon na ko bañ a rendi ndax jumtukaay loj amoon na fa kon dees ko lekk lee mu ne waxa duxtuli fa wuuteef na fii daalika ci loolee wax ji gën a wóoru mooy daal moom bu fekkee ne jumtukaay loj amoon na fa ba noppi ñu rendi ko moom deesu ko lekk moom gëleem wal xanamu gàtt ya tusbahu def na leen rendi fa in nuxirat ndeem lojeef na leen lam tukkal defu leen lekk gàtt mooy xar ak bay dañ noo digal nu rendi leen boo leen lojee bañ leen rendi du baax lu may nag dafa daan ci lu mel ne pax mënoo koo rendi nga loj ko lu mel noonu kon des na ko mën a lekk léegi mu teg ni waxa duxtulifa wuteef na aydan ba tey fii zaalika ci loolee mooy rek gàtt ba dañ koo loj te fekk mën nañ ko reen yoo amutoon benn ngànt kooku wax ji gën a wër mooy deesu ko lekk wa zakaatu maa rendi la nga xam ne fil bat ni nekk na ci biir zakaatu ummihi mooy rendi ndeyam ja ida tàmm nde mat na xalquhu bindam ba wa nabatate sax sha'ruhu kawaram nga nee na bu ñu rendee yaay ji dañ koy fees ñu fekk ci biir ba doom bu fekkee doom ja gis nañ ne bind ba mat na kawar ga sax na fekk ñu ko fekk mu dee moom doom ja du ci wàññi dara mënees na koo lekk dañuy lekkee yaay ji ñu rendee ba ñu rendee yaayam day mel ni rek rend nañ ko ñu ko ci fekkal muy dund nag moom man bala ñu koo lekk faaw ñu rendi ko waaye li wax na mooy ñu fekk ko mu dee ci biiru yaay ja kon bu ñu rendi yaay ji day mel ni rendi yaay ga mooy ak rendeem rek ndegam moom bind ba mat na kawar ga sax na wal mun xanixatu aji xerandikoo bi xablin ci buum wanax wi ak lu mel ne moom wal mawquzatu ak luñu fàdd bi xasan ci yat wa shibha ak nuroog moom wal mutaraddiyatu ak aji bartandiku wal natihatu ak luñu daan mooy luñu dañ rek wa akilatu sabuhi ak lekkit ndegment in balaxa ndem jot na dalika loolee min xaa ci ñoom fi haadihi l wujuhi ci lay anam mablaxan ab dayo laa tax yu si boobu duñu dundati maa xaw ànd ak moom lam tu ukal kon defu leen lekk bi zakaatin ci rendi waxu la daanoo loolu ñëw na ci alxuraan maanaam lu xerandiku ci buum mbaa lu mel ne buum mbaa lu ñu fàdd dóor ko yet wala aw doj ak lu ni mel mbaa lu barastiku ci kaw daanu fi suuf mbaa lu moroom mu jàpp doon ko daan ba mu gaañu mbaa lu aw rab jàppoon tàmbali koo lekk yooyu yëpp dañuy seet ba xam bu fekkee li ñuy wax pàddu li ñuy wax pàddu ba dem na nga xam ne yooyu jamono moom buñ ko rendi wut du watee dee ndax pàddu ya moom dem na su boobaa ko nee na rendi ga du ca am njariñ boo ko rendee du ko tax a baax bu fekkee yenn ci dal na ko nag te taxul pàddu ya dem nag waaw kon moom buñ ko rendee mu baax pàddu yi nag juróom la yokk gi nga xam ne moo jàpp ca